أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى رضي لكم الإسلام دينا لم يرض لكم دينا سواه والإسلام والاستسلام لله تعالى والانقياد له قائلا وباطنا ليس الإسلام عقيدة فحسب ولكن الإسلام عقيدة وقول وعمل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام عباد الله إن هذه الأصول هي معالم الإسلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها أو أن تقوم إلا بها كما كما لا يقوم البناء إلا بأساسه ومن هذا الحديث يتبين لنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام بل هي ركن الأعظم بعد الشهادتين إن الصلاة عمود الدين هي التي فرضها الله على رسوله مباشرة بدون واسطة فرضها عليه على مكان يصل إليه البشر وفي أفضل وقت مر على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه راية المعراج فوق السماوات السبع إنها لنعمة جديرة بأن يشكر المسلم ربه عليها ويستوعب فيها جزءا كبيرا من الوقت لأنها صلة بينه وبين ربه وخالقه يجد فيها راحة نفسه وطمأنينة قلبه ولذلك كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون اشكروا ربكم هنيئا بالنعمة التي أولاكم بها حافظوا على صلواتكم ولا تطيبوها فإنها عون لكم في أمر دينكم ودنياكم عباد الله إن من أعمال البر بناء المسجد وعمارته وفي صحيح البخاري عن سيدنا عمر بن عمرو أنه سمع من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله فلا الله له مثله في الجنه يخلو الله عليه وسلم الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانا وجعلها صلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيمانا وكررها كل يوم حتى لا يحصل الجفاء ويسر عليهم حتى لا يحصل التعول على وأجزل لهم ثوابها فكان بالفعل خمسا وبالثواب خمسين فضلا منه وامتنانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالقنا ومولانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخشى الناس لربه سرا وإعلانا الذي جعل قرة عينه في الصلاة فنئم العمل لمن أراد من ربه فضلا ورضوانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما عباد الله إن من السنة المؤكدة في صلاتكم أن تؤدوها جماعة مع المسلمين فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ولقد كان رجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف هكذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلف منهم عن صلاة الجماعة إلا العذر المقبول وهكذا حال شيخنا أحمد الخليل مع أتباعه ومما يؤكد ذلك أنه ورد في شروط في شروط في شروط الإجعمال ببلغ المعقود من الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شروطه حضور المستعمل لصلاة الجماعة إلى العذر المقبول أيها المسلمون أيها المؤمنون حرصوا على صلاة الجمعة وإياكم وتهاون بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين قوم عن وضع الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين يا رسول الله وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه وقال شيخنا أحمد الخليل من شغلت الصلاة عن الأشياء انتفع بها وبالأشياء ومن شغلت الأشياء عن الصلاة فلا ينتفع بها ولا بالأشياء عباد الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركموا مع الراكعين نبينا صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتحر فيحسن طهورا ثم يتوجه إلى مسجد من المساجد إلا كتب له إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفع له بها درجة ويطعنها بها سيئة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الوقت له من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم قرآن عظيم وخبر لي ولكم حكيم وكف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن ختام ربنا واغفر لنا وعافنا بعافيه تكون kon bu ko defee ñu ngi fii ci ubbitey jumaa ji nga xamee ne sëñ Alassane Ndiaye taxawal taxawal na ko fi fii ci ñaari cafetière ñu taxaw kenn ñi nga xamee ne ñooy saytu liggéey bi di sëñ Abdou Lahad Sy eh, di borom xam boo xamee ne ci quartier bi la dëkk eh, ginnaaw ubbite gi ñu jox ko mu ko saytu sëñ Abdou Lahad ñoo nuyu bu baax di la siyaare bu ko defee nga wax ñu tey bis bi ñu nekk sabab bi ndax ku nekk xam na ko waaye nga gën a leeral rek ak eh, bërëb bu tell bi ñu tedd bi ñu nekk kan moo ko fi amal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما Serigne Cheikh ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Rafah TV yëpp di leen siyaare bu baax a baax waaw laaj bi nga laaj nag mu jëm ci Euh, ak taxawaayu bis bi li ko waral moom mooy jàkka joo xam ne moom la ñuy ubbi fii ci ñaari cap ca jëmm ju baax ju am solo taxawal ko muy ku ñu wax Serigne Alassane Ndiaye di ab entrepreneur waaye di nit ku baax koo xam ne sunu boroom tawféexal na ko ba mu amal liggéey bu màgg bi bu rëy bii nii di jàkka joo xam ne mi ngi euh, janloo rek ak tali bi nga xam ne moo nekk ci Euh, jëm Kër Baylaat mooy diggante yoonu daaru ak euh, Kër Baylaat di jàkka joo am solo comme ni ngeen ko gisee ñu ko doon ubbi nag tey jii nii sëñ Alsaan nag moom wax dëgg yàlla comme niñ ko waxee léegi nii rek euh, ku jàmbaare la wax dëgg yàlla ndax ku gis jàkka ji rek xam ne sonn na ci wax dëgg yàlla ci loolu tawfeex yi nga xam ne suñu boom defal na ko ci yooyu yooyu moom kenn xamul fu mu yem ndax itam jumaa moom day mbir mu am am solo moo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala ci boppam da cee soññe waaye itam yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci wax ju am solo ndax yonent bi daa wax ne man banaa lillaahi masjidan banaa laahu lahu baytan fil janna képp koo xam ne tabaxal nga sunu borom subhaanahu wa taala am nekk am na sax xadis boo xam ne moom daa wax ne lu mu tuuti tuuti donte sax dafa toll ne tàggu picc nee na suñu borom dana ko fay ak kër ca aljana te kër googu noonu nag kenn xamut nu mu mën a toll kon loolu jàpp naa ne mbir ma am solo la li ci des ni gis nga ko sëriñ Mountakha ci boppam moo yebal euh, sëriñ euh, Cheikh Lappe mu ànd ak sëriñ Mountakha Pakala ñu ñëw fii tey ñoo doon ubbi euh, jumaa ji ñoom ñoo doon taxawu julli gi nii nga gis itam wax dëgg yàlla mbooloo mi nu ñu nu ñu toll loolu lépp li ko waral rek moom mooy jëf ji nga xam ne tey jii sëñ Alsaana amal na ko fii ci këram gi nga xam ne pàkk la boo xam ne wax dëgg bu bu mënoon na ko jaay lu ne waaye nag mu gis ne moom defal ko suñu borom subhanahu wa taala mooy def ko ci yoon yàlla moom moo ko moo ko ko gënal moo tax mu jël ko def ko jumaa te xam nga ne koñ bi wax dëgg yàlla aajo woon nañ jumaa lool ndax buñ daan julli dañ daan dox lu sore sori naaju tàng lool wax dëgg yàlla waaye nag yàlla defal nañu tey ñu ubbil ñu fii jumaa joo xam ne daañu jege ñu ñëpp jege koñ bi te muy jumaa joo xam ne itam ju euh, am taxawaay la ndax nit ñëpp dañ ko soxla xam nañ ne wax dëgg yàlla fii barab la boo xam ne soo fi jaaraan wax dëgg yàlla ndox kese nga fiy fekk bi muy laata tabaxal jumaa ji war yàlla def na ci liggéey bu rëy rëy rëy fi daa feesan dal ak ndox waaye gis nga ko liggéey bu mat bu dëgër bu am solo bu am yitte la ci def ba fii gis nga ko tey ji bu tawee mën nañu wax ne daanaka ndox mi du fi agsi kon maanaam li mu def ci suuf rek ci diggante boobu rek ngir ndox mi man koo saafara loolu rek dafa xawoon a jafe waaye yàlla dogal na mu jëm ci ba yàlla dogal mu am ci ndam fii itam yemut ci rek euh, tabax euh, jàkk fu ji fu góor ñi jullee waaye defaal na itam foo xam ne jigéen ñi dañ fay dañ fay jullee muy barab bee ñu jàkkaar lool waaye yemul ci lool itam mu yokkaat ci def ci euh, daara boo demee ci kaw moom da ko préparé pour daara daara alquranul karim de nekkul de nekkul jumaa joo xam ne état ñu jullee ci kaw rek waaye da caa boolewaale nag daara nga xam ne fi sëñ daara bi daara alquran daara alxuraan fi seen daara bi nekk yëpp wax na wax dëgg yàlla préparé na ko ba ba yàgg na nga xam ne am na ci kaw am ci suuf boo gis fii ñu jàkkaaroo ko ni ko waxee léegi moom mooy fi jigéen ñi nekk waaye fi ko tiim nag foofu la daara daara ji nekk kon muy daara ak euh, ak jumaa yëpp mu boole ko ci pàkk bu bu mel nii kon loolu day wane ni te boo xoolee jumaa ji itam euh, tabax bi wax dëgg yàlla maanaam ñi ko xam xam ne xam nañ ne sonn na ci lool sax ndax boo xoolee rek liggéey bi da nga xam ne liggéey bu am qualité la maanaam du jàkka joo xam da ngaa ñëw defar jàkka rek ngir turu jàkka waaye la ca war a am lépp ak la war a àndal lépp da caa sonn ba bëgg a dee boo xoolee jàkka ji lépp daf koo karo te loolu xam nga yitte dëgg la kaw gi ak gi lépp ci yam nag ba ci soroor loolu xam nga ne kon maanaam moom def na ci yitte ju rëy rëy ñu ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala la tax muy def jëf ju mel nii suñu borom fay ko ba mu yàgg ci ay sëtam ba mu yàgg ci ay mbokkam ak ñëpp bañ jullit ñëpp man cee man cee man cee dugg ndax waaw ndax fii itam boo xoolee muy Touba li sëñ bi bëggoon a bë bëgg rek moom mooy ay jàkk waccal bu yooti kullaha masajida sama néeg yëpp na nga ko def sama kër yëpp nanga def na nga ko ay jàkka kon fii nag bokk na ci jàkkaay sëriñ bi kon loolu itam di liggéey boo xam ne bu am solo la ci biir euh, mu amal ko ci biir biir biir biir dëkk bi dama ko yàgg wax dama daan wax ne waruñoo may bàyyeete kenn muy tabax jàkka képp rek te boolu wu ci ab jàngukaay ndax gis nañ dëkk bi boo xoolee loolu moom ayib la joo xam ne wax dëgg yàlla moom dafa dafay maasaloo mooy tabax mën nañoo tabax ay jàkk lool sawar nañ lool waaye nag daara moom dañ koo desal ginnaaw te dañoo wax ne al masajidu wala boog al madaris xabla al mooy dañuy tabax ay daara ba noppi doo ko te teg ay jàkka ndax yow boo tabaxee ay jàkka te maanaam te waajaloo ñoo xam ne ñooy taxawu jàkk yooyu noone jàkk yi dañuy mujj ràpp rek kon la war a jiitu mooy tabaxal nit ñi ay daara mooy ay jàngukaay ba noppi doog leen tabaxal ay jàkka waaye ku mën a boole ñaar yëpp nag fa lillahi alhamdu rabbil alamina te moom ñaar yëpp la boole mooy jumaa ak daara nga xam ne tey jii ëllëg ñi fi jógee jànge ñi fi forme jàngal leen ba ñu def lañ def ci ñoom lañu war def ci ñoom ba bu ñu àggalee ñoom mën nañoo daal di continuer yor liggéey boobu mooy yor jumaa ji nii hmm. ñoom ñëpp wax dëgg yàlla moom moo moom moo kii lépp da jumaa ji daanaka boo xoolee daaneka li ci dem lépp moom moo ko ci def ci alalam waaw daanaka li ci dem lépp moom moo ko ci def ci alalam te loolu yombut moo tax gis nga liggéey bi bu ci benn loxo nekkee dangay gis ne muy gaawee ca am solo te loolu feeñ na ci liggéey bi mooy ak qualité bi yëpp feeñ na ci gis nañ fi ay jàkka yoo xam ne ak jumaa yoo xam ne daanaka am na ay at yu bëree bëri te moom liggéey bi wax dëgg yàlla ci ay diir bu gàtt la ko daal di liggéey loolu nag pas-pas la ak bëgg lu baax ak bëgg lu jariñ jullit ñëpp kon loolu ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax di ko ñaanal yàlla mu gën koo defal tawféex ci liggéeyam bi nag yaatal ko te xam ne lii jëf la joo xam ne moom du dakk ba ilaa yawmi diin ndax bokk na ci yun sansaram waxoon ne ñett yi nga xam ne bilit euh, bu ko bàyyee ci ginnaawam dana ko fekk ca bàmmeelam ca mooy euh, def loo xam ne nit ñi dañ ci mën a jariñu ci ginnaawam te jumaa bokk na ca loolee kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko ñaanal suñu borom mu defal ko tawféex defal ko taysir te itam a naatal ba mu gën a yaatu ndax njariñu lislaam rek moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci génnee ëllëg kon suñu ñu ngi leen di nuyu waa yéen waa Rafah TV ci teewaay bi ak taxawaay bi yëpp gis nañ ko di ñaan suñu borom yéen itam mu barkeel seen liggéey surtout yow suñu seex Sylla mi nga xam ne wax dëgg yàlla ku ñu yàgg jëflanteel la nga yëngatu ci xam-xam ak lépp kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax di leen di leen sant bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala